waaw euh, fii théâtre moo ñu fi indi euh, théâtre mu nekk suñu métier nekk suñu passion euh, di ko dund bu baax a baax nag ñun ñu sañoon en tant que femme déjà bu nekk ci biir culture bi fépp fu am festival fépp fu am spectacle suñu tànk dina fa ko mais malheureusement dafa am yeneen activité yoo xamante ne daf lay tënk ba doo mën a di déplacé wu moo tax à chaque fois suñu amee occasion ñëw rencontrer artistes yi xool spectacle yi euh, daf ñuy jox une idée théâtre bi fan la toll qu'est-ce qu'il faut euh, plaidoyer yi fan nga ko war a wax euh, et puis on a beaucoup d'informations par exemple tey bi ma ñëwee fii am na yoo xamante ne gëjoon naa nag gëjoon naa ñëw festival mais bi ma ñëwee gisaat naa yenn affaires yoo xamante ne gëjoon naa ko gis yenn information yoo xamante tamit rëccoon na ma c'est déjà bien de, de participer au festival je trouve waaw man man euh, pour commencer dama dama dama xaw a choqué tuuti dama xaw a choqué par euh, stade bi ñu fu ñu nekk euh, niveau Kaffrine tard bi fi mu toll dama choqué torop parce que suñu normalement bu ñu nee festival dañu war a teg lépp su ma waxul même bu dul lépp sax mais au moins mu am le minimum mais fii apparemment amul salle de spectacle amul centre culturel artistes yi ñu ngi nii di jouer bâche lañ teg di ci jouer alors que lii c'est c'est tellement noble c'est man daal damaa jommi daal leneen tamit lu ma gën a metti mooy lu ma gën a frappé mooy benn autorité ñëw fi c'est pas normal c'est un festival de théâtre c'est des artistes comédiens qui se sont réunis qui sont venus de un peu partout des régions ñu ñëw ñëpp bàyyi lépp seen lépp ñun ay kilifa yu toll ni ñun ñëw ba fii benn autorité euh, ñëwuñu kii accueillir choqué na ma trop surtout mairie bi mairie Kaffrine xaw ma kan la waaye c'est pas normal c'est pas normal activité bu mel nii réunir autant de gens ba pare kenn gisu leen moi je suis choquée je suis outrée lii moom neexuma dara dara dara dara di leen ñaan nag ñun dañu bokk ci affaire yi te bu ñu rek na leen ngeen subvention ngeen ngeen ngeen jox ñu ay subvention wala ngeen soutenir suñu suñu ay action mais dañ ci bokk ñun xam nañ ni mu demee xam nañ bu baax a baax ni am na lenn loo xamante ne pour culture bi la génnee leen ko ngeen jox ñu ko ndax ñoo ko moom arrêtez arrêtez c'est bon jox leen ñu loolu ñu soutenir suñu artistes yi xale yi mën a def théâtre bu baax théâtre bu am niveau Sénégal jëm kanam man loolu laay lancé comme appel autorité yi na ngeen dugal seen loxo ci théâtre lii moom metti na trop nañ waxante dëgg waaw ah, le constat est là le constat est là le théâtre dafa stagné fii dafa stagné ci suñu évolution c'est dommage c'est dommage parce que bu dee dañu prétendre euh, yenn seen yi bëgg wax ma sax ne ñëw dakaar festival Sénégal dakaar rek asamaak nga war a dem ci sous région bi wala à l'international il faut un minimum de de de niveau te niveau boobu vraiment da ngay xool fii ça manque formation dafa manqué dafa mel ni théâtre yu yàgg yooyu la nekk di wane nii menuisier bi sax bàyyi nag di jël di si di siye day dem ca machine bi mu daggal ko ba mu rafet asamaak théâtre théâtre dafa évoluer te loolu tamit ñun bu ñu amul formateur yoo xamante ne xam nañ li xew yu bees yi indi ko ñëw wan ko xale xale itam duñ ko xam dañuy topp ci théâtre bu yàgg ba rek di ko def alors que loolu ce n'est plus compétitif compétitif et c'est dommage c'est dommage parce que xale dañu am talent am nañ Pastef am nañu gëm-gëm et c'est loolu ak talent et puis c'est c'est tellement magnifique c'est dommage que amuñu encadrement di lancer appel rek ñu jàppale xale yi suñu métier bi ñun ñu ngi jëm si mag il faut que mu am relève bi faut ñu assurer ko sinon suñu xel du dal ñaan yàlla rek ñu jàppale suñu métier bi ñun moom la ñu am ñun ñu bàyyi suñu métier moom la ñu bëgg ñun théâtre kat lañu fu ñu dem nag dañ koy wax